lor ju nekk nag lor nañ ko ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la waykat bi di wax ne bul jortu bi noon yi di lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla def ko seetaan wala def ko wacc yàlla seetaanu ko wacc ko jëpp lor ju ko jot jotoon na yonent yi nga xam ne ñoo ko jëkkoon <coughs> ndax mbit mu tat natt bu tat kooku fay fooralu nit ak yàlla def ko yokk maqaama rek tey de daldi léeb bu fekkoon ne wurus wurusu ngalam lakk ko ci safara dana wàññi dara jaam bon kenn du taamu balaa ngaa jariñoo sa wurus def ko ci safara de ni nga xam ne ni la safara di sellale wurus nag noonu la nattu di sellale nit yàlla de moo tax yàlla di nangu yenn jamono yi nit yàlla yi nattu di leen laal de waaye xam ngeen nag ne bëri na loxo lu jóg jëm ci yonent bi yàllaa ko fekk de te booba xéefar yi bëri nañ te booba lu nekkat ñame nañ ko su fekkoon yàlla seetaan na ko kon xéefar yi boobu nañ ko de nit ñëwoon na bëgg koo rey sa xawras yoot na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare zaati anmar bañ xare ba xare ba jeex yonent jàll xurwa dem ba sori saabaam ya gis genn garab mu wékk fa jaaseem su meeku di sangu xawras séen ko ni Muhammad a nga na le sori saabaam ya amewut genn gànnaay yàlla na ma yàlla rey suma ko rey tey dal di fab jaaseem rek di raam di watatu di watatu di watatu baag si yonent sallallahu alayhi wa sallam fa mu fekk fa mu taxaw xacc jaaseem ne ko kuy dox sama diggante yow Muhammad tey kuy tere ma rey la ne ko yàllaay dox sama diggante yow mu xacc jaasi ja rek loxo ba lox mu ànd ak jaasi ja daanu ci suuf yonent sol yëreem dal di ñëw fab jaasi ja ci ne ko kuy dox sama diggante yow mu ne kenn xanaa sax mbaax rek de <laughs> yonent ne ko waaye man maa yow mbaax sànni jaasi ja bàyyi ko booba bu yónn bu yàlla nangoon na jaasi jay bu nangoon kon keroog foofu la bakkanam yonent di am Abu Jaalin ba mu ne dana rey yonent ba sallallahu alayhi wa loo su gélém moo ko dogandu loo xam ne ngaamu ko waa ngi ca asamaan ña ngaamu suufaa ngay tege ci bopp bi yonent ba sallallahu alayhi wa de ana ummu jamil jabari abu lahab ba tabar yadda abi lahabin wàccee ummu jamil jabari abi lahab dafa ne muhammad man lay xas dal di xenu tëngab doj ne fu ma fekk yonent rek toj boppam de te kenn du ko mën a faj di dox ba ñëw fekk yonent a ngi toog mu romb ko ñëw gis naa Abubakar mi den ak moom naa ko ana sa waaji wan ma ko ba ma rey ko de abu Abubakar naa yonent gisul la mu ne na may gisee ndax fi ma xam naa gis jan mu dëdd rek naa su ma ko gisoon tey ma toj boppam de waaye gisu ko de ca xareeb xaybar ca xaybar yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak sidina Abubakar ak sidina Ali ak mbooloo ci saaba booba ñu ngi xóoloon teg bu yahud amee soxla ñëw ci jullit ñi jullit ñi dimbali leen su jullit ñi amee soxla ñoom it dem yahud yi dimbali leen di dajale doyee joo xam ne daf ko bëgg a fayal nit ne nañ dem ci yahud yi dimbale ñu ba ñëwee rek yahud ya daal di dem ne ñu dem booltoo waaw sakkal ko doyee ji dem benn waay ñu di diisoo rek ne ana kuy dem yéeg ci kaw machine walukaay bi tiim kër néeg bi na ko fay fab rek tiim ku ko toj boppam benn yoon rek ñu noppalu jibril ñoo wax ko ko yonent rek yonent daal di ñibbi madina tàgguwut sax ñi manda doon bañ seetee xam ne yonent bi dem na xam ne liñ doon fexe nag rek sidina Abubakar muñ ak sidina Ali ñaanu nag moom mu muñ gisuñ dara ñu ñëw fekk si yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax leen li xew de ñu del si yeneen yoonu ñaareel Seynabu bintu Xaaris dégg na ne yonent bëgg na yàpp te yàpp gàtt la ci gën a bëgg te tànk yee ci gën a bëgg mu dal di rey gàttam posan ko posan posan ba nga xam ne ku ca lekk tib rek ñibbi alaxira daal di ko wàjj rek ñëw tegal yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama at yaa ngoog yonent daal di fab rek mat waaw gàtt ba wax ñëpp yi dégg ne ko bul ma lekk posan na ci man rek yonent ne yëkkati leen seen loxo gàtt bi ne posan na ci nekk de waaye tib booba mu ca sexoon waaw mujj na def ay jëyit nii ci waaw denq la ñam yi moom yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw ba coppi xoppam ji mu génne àddina na ne poson bi ma lekkoon ca xeebar dañu di ma di daane ba léegi yëg naa nag ne dog na sama mbuum xol gi de yahood lépp lu yaay ci àddina ci ñoom la bàyyi ko de ne na ñoo rey yàlla wax na ne waxuñ dëgg moom moo yëkkati Iisaa laqi ko ca asamaan waaye ñoo rey Yaxya de yonent yàlla Muhammad itam ñoo ko doon fexe rey de kiis gi xeet gu yàlla bind mooy yahud bani israil moo tax yàlla bëri nettali seen xabaar ci alquran seen xisa wàllam yépp nettali nañ ko pour ñu xam seen mbon rek lu yàlla bind ci àddina ñoo ci xees te xay ne ci àddina ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom lay dellu de